oui salaam salaam gaañ yi na def waay rafetlu rek waaw di leen ñaanal jàmm xam nga coow li ni ngi kur àdduna moo demee noonu quoi xam nga dafa am gaañ yi di nuyu sénégalais yi nag benn affaire bu ndaw quoi. bi gars yi xamul euh, gis ngeen euh, suñu siste kenn bis kenn bis wax na et la région gis a ay groupe Futur Média sidaat ñom ñepp wa groupe Futur Média ak ñoo ñepp di attaquer sorti kenn bis bu muy nane bu muy joxe avion le classement du grand magazine Rolling Stone vois le showbiz c'est les grandes voix de la musique les 200 grandes voix de la musique ok Rolling Stone joxe ci def ci classement Rolling Stone magazine le rek magazine showbiz le rek bu joxee classement joxe classement qui ci classement mu tànn ci ay artistes ci ci somme quoi mais tànn bii Rolling Stone sur le plan international ñu koy contesté même au niveau de la Suède nous ko contesté même aux États-Unis nous avons ñi ci parce que c'est pas un choix équilibré pour woné normalement la performance des grands artistes donc le choix de euh, Rolling Stone a été contesté oui, allo. Ça va et toi mm-hmm. Oui Ok, c'est partant. Oui. Ok, je vais l'appeler. Mm-hmm. Ok, ok. C'est bon. Mhm. Ok. Alors, euh, showbiz, Momel et Nounou. Dans le monde du showbiz, il y a des grands, des grands artistes. C'est des portes euh, euh flambeaux. Ces voix-là, même si nous des de nous sommes c'est une côte des carreaux ñoom ñooy contrôler showbiz bi c'est-à-dire toujours dañuy exister sur le marché ñoom ñi ñi nga xam ne ñi ngi continuer di évoluer mënu lañu leen yóbbul dara donc artistes yooyu mun nañ ci ràññee euh, Robert Nesta Marley Michael Jackson pour jël ñooñu rek xam nga ci ñi nga xam ne jënd nañu àdduna mais ñiy dund mun nañ ci ràññee Céline Dion ci ñiy dund Céline Dion mais nous avons beaucoup ci le choix euh, du magasin Rolling Stone ci choix def même aux États-Unis il est contesté choix contesté au Canada c'est contesté dégg ce les plus grandes structures de showbiz ci choix quoi donc choix bis daf ci mais li bind <laughs> bojo lan affaire remarqué tous les chroniqueurs ñi nekk groupe Futur Média ci est Ndour ak journaliste bi ak ñooñu ñep ay ñoo animateurs ñep ñi ngi attaqué Ken Bis mais en fait le pourquoi ñuy attaqué Ken Bis ñooñu ni ñu amé droit joxé sen avis Ken Bis non la amé droit joxé avis donc je ne vois pas pourquoi ban péché la Ken Bis def ben ñom sidat ñom ñeneen ñi fa groupe Futur Média TFM ñep diko attaquer journaliste chroniqueur ak ñeneen di Kenbis, euh, Ken mais Kenbis Bis le droit joxe khalatam, comme Youssou Ndour a le droit joxe khalatam, comme Bep sénégalais a le droit joxe khalatam. c'est pas parce que c'est Youssou Ndour que ñoom dañuy liggéey y ak yeneen télévision yoo xam il bojo bojo une télévision yu corrompu yooyu nekk foofu di yuuxu di wax Youssou Ndour Youssou Ndour il peut pas peser devant Michael Jackson c'est pas possible Youssou Ndour pas peser devant Michael Jackson Youssou Ndour pas peser devant Robert Nesta Marley di Bob Marley aujourd'hui ce ce magazine Rolling Stone il est contesté magazine de est contesté ba Canada fu même souhait, c'est contesté Bon tout ci showbiz bi ñu ko contesté dem Google ngeen def classement du magazine Rolling Stone sur les 200 voix les plus grandes 200 voix ngeen Canada partout ñu ngi contesté donc euh, showbiz bi buñu fonto ñi quoi sunur ak Michael Jackson ta ne leen ak Bob Robert Nesta Marley c'est pas possible ñu pointure ñu Beaucoup ok donte Youssou Ndour sénégalais la africain mais dama bëgg ñox il faut être raisonnable kon man nous di gestu affaire bobu dégg ngeen tey dem ci site dem leen def Google ngeen def euh, le classement du magazine Rolling Stone des grands voix ngeen dis contestation voilà contestation le débat est installé le débat est installé donc nous respecter ni quoi c'est pas parce que kenn bis parce qu'il manque de coloration politique parce que Kenbis d'accord avec le régime Makissal. et nous sommes avec régime Makissal. Yo Ken Bis amna un problème ak ak ak groupe Futur Média parce que Bouba Boubandour Bouba Ndour on se souvient ici Bouba Ndour nako fi ba ba jël bi wàccee ko fi xam nga Ken Bis jay ko fulla ak personnalité Bouba mo moom mujjee dellu si di négocier ak Ken Bis ba juboo ak Ken Bis donc il faut que ñi ñi joxante ci ñi respectante quoi dem len ci ngeen deglu même ci en termes de message en termes de message en termes de message la wax Robert Nesta Marley du moromu en termes de musique de qualité de musique arrangement yep tout du moromu Youssou Ndour déedéet contesté. Nous wax contester ñiy bëgg contester parce que dañuy wax ak seen bakkan rek parce que c'est un patron Là, quoi voilà lolo la bëgg a wax gars yi dem allez-y ngeen vérifier euh, comment dirais euh, le magazine la ngeen xool ci Google ngeen mais ñu quoi koy contester voilà donc euh, euh, lolu il faut que ñi ñi ñi ci xel parce que gis ngeen affaire bi ah, dafa niroog soxor quoi iñaan waaw soxor ak iñaan te gisuma kenn ku défendre euh, xalé bobu xalé bu lu mo deug la amna xalat xalaat sañ-sañ mu contesté joxe xalaatam te lu mu joxe kenn mënu ko teggi tay ñom sidat parce que ñom ñi ngi futur média, Médias ñoom ñi ngi RFM ñii ñi ngi groupe Futurs Médias ñoom ñi jéemuñu contester positivement Dieu ñu dit lu tax jéem ñu def recherche ñuy contesté ce grand magazine là est contesté mais quand même voilà donc là là bëgg amal li bëgg en attendant donc euh, pour wan euh, euh, pour wan ni du morom du ñu dabulen fi ci wé ñom ñaari ñen deglu son yi quoi. yooyu dinañu dof sabay man ñii laa <laughs> sont ces gens-là. Ils nous contestent, boy, du quoi, du coup, Dieu me stigmatisé, qui presse, du quoi. Hein? Du coup, Salut, les gars, je Euh, xamna les je dañu vous mais <laughs> lutax lutax mu joggé mu wa gañ xamna dina dina vous ñu mais waru vous waru leen jaxal parce que xam ngeen lu tax euh, dafa wow, waaw ku ci que... la sa place quoi parce que dama me tu actualité bi actuel nga euh, comme bojo bojo comme sen, patron moi woy bojo patron sen moi bojo dama gis ay personnel am nekk ay personnel hypocrite personnel groupe futur media la wax de dama ne muy euh, rfm ak groupe futur media, personnel yu sundul bobu dama len gis ñom ñep ay hypocrite lañu ay traître lañu c'est à dire ay khousma ñap lañu quoi amuñu dignité amuñu gor mais bu do yu ndur fenn dañu ne no yu ndur wax na deug ñom même bu dee Youssou Ndour fenn dañuy ne non Youssou Ndour wax na dëgg même bu dee Youssou Ndour juum na dañuy ne déedéet Youssou Ndour juumul wax na dëgg mooy groupe Futur Média ak TFM ñu ràññee ci lool Sidaat Sidaat Sidaat animateur TFM Sidaat ñu bu fës ci lool ñoom Bouba Ndour fës ci lool seen jàkkaarloo boobu fës ci lool acharné wu. ci suis une sister acharné wu ci une sister suñu suñu doom sister xam ngeen kan acharné wu ak euh, plateau de télévision es euh, euh, euh sans limite Seneweb web, ñooñu nous daanu nous quoi c'est-à-dire nous ñëpp dañuy acharné wu nous ci benn nit numu tuti tuti tuti, ligay na pour réew mi tuti tuti, tuti tuuti tuuti am taxaw réew mi nu tuti mi ngi taxaw sénégalais mom amna fit ci jamono bi nga xamné artiste ñepp waaf ragal mom en tant que jigen mu jël taxawal mouvement mouvement am jàkkaarloo ak régime Macky Sall diko wax deug di xex mu nek patriote moy ken bis dama bëgg wax ken bis may wax sénégalais bàyyi leen xel Cengiz patriotes yi dooleel leen Cengiz askanu Sénégal dooleel leen kenn Cengiz parce que Cengiz xaarul ba xeex bi jeex xeex bi balaa muy xaaj xeex bi bu muy ne kërtim daf ci lañ am courage Cengiz xam nga Youssou Ndour dafa am courage moom ànd ak Macky Sall Youssou xam nga daf dafa am hypocrite la Youssou Ndour moom nguur bu ñëw rek mu ànd ak moom nguur bu ñëw Youssou Ndour ànd ak moom Youssou Ndour la ngaa mun a fi Abdou Diouf dem dem dem dem dem Abdou Diouf daanu mu xam ne Abdou Diouf day daanu yaa nga dëgg maam Sadio mu jëkki-jëkki rek euh, euh, door fekkee ma si boole créé fekkee ma si boole rapidement mu rallier ci ab Wade moom Youssou Ndour bàyyi na Abdou Diouf ñëw ci ci Ablaye Wade mu dem dem dem dem dem dem dem xam ne Ablaye day daanu mu mu mu créé wër ndomb wër ndomb yéen ñëpp wër ndomb ci élection ba muy jënd di soobu soobulu policier naan ko non euh, jógel fii parce que yow euh, am nga li nga ci réew mi këran këran ci jamonoy boobu Ablaye Wade mu dem ba xam ne Ablaye day daanu mu dóor ko mu mu dóor la ko wax wër ndomb quoi wër ndomb noonu jàppal bay jàppal bay mu langaamu Macky Sall tey mi ngi ak Macky Sall donc cursus Youssou Ndour ak comportement Youssou Ndour ci taxawaay askan Sénégal taxway bo la hypocrite parce que intérêt bopom rek la di intérêt rek mais yonom nekkul ci askan bi sénégalais jeunesse bi daf lañ utiliser utiliser musique bi utiliser askanu Sénégal ba egg ci niveau nouveau mu wara Sénégal côté askan comme artistes ñom ñi xex ñom ñom Seydou Alpha Blondy ñom Tiken coli. ñoom Salif Keita ñu ñëpp doo jamais nga gis leen ñu ñu tafu ci nguur nguur boo xam ne rawatina nguur boo xam ne mu ngi exploité alal réew mi di sàcc ak xaalisu sénégalais yi di rey doomi jàmbur yi moom Youssou Ndour ak lépp lu ko Sénégal jox ak jeunes yi tout récemment xoolal concert bi grand bal bi loolu yëpp mu ngi taxaw ci intérêt boppam ak njabootam ak waa këram moom Youssou Ndour ci boobu jamono Macky Sall mi ngi toroxal sénégalais yi mi ngi rey sénégalais mi ngi sàcc alal jàmbur yi ñu ngi enlever ay citoyens sénégalais di leen ci jamono boobu kenn bis mi jigéen kenn kenn bis nga xam ne doom la ci Youssou kenn kenn biis laay wax de jël jël responsabilité taxaw takk fi itam créer mouvement am défier régime Macky Sall ànd di xeex waaw ànd ak di xeex kenn bis. teg fi mu woon def fi conférence de presse nous takk fitam ànd ak population bi la ak jeunesse bi jàkkaarloo le régime Macky Sall ci boobu jamono Nour. Ndour mi nga xam ne Sénégal deseel na ko dara mi ngi ànd ak ba léegi di sibooru Macky Sall di di di ŋàcc deretu askan bi di liggéey ci kaw askan bi moom ak ay organisation ak ay structure yëpp groupe Futurs média, problème taxe impôt du fay top, fu ko neex def mi ngi parce que nguur rek lay topp Youssou alors li tax ma def ma jënd nii dafa am un magazine un magazine bu tudd Rolling Stone mu nek États-Unis Rolling Stone mu def un classement les 200 grandes voix Rolling Stone ah te showbiz showbiz bi ñun ñep xam nañu lan moy showbiz dans magazine yi est a Rolling Stone nous avons pour donner fouf. Mais on ils un petit peu classement. Sur les 200 voix, les, les, les plus grandes 200 voix de la musique, nous avons nous contexte 69 avons 68 e Tu e sommes Michael Jackson. calme Michael Jackson. calme Céline John. Céline John. es Robert Nesta Marley. Bob. Robert Nesta Marley ak lu mu représente Marley bu mu gaañoo ak ça fait 20 ans xam nga vingt et quelques années Robert Mesta Marley mais ba musique Marley amul benn musique bu musique pour développer le reggae surtout la musique de Robert Nesta Marley ci hit paradis buñ y a mu ngi ci alors Rolling Stone magazine comment comme je ma créé magazine il ko mu am popularité quoi waaw ma choix mais Rolling Stone a été contesté aux États-Unis Tu choix Bobo. Rolling Stone a été contesté au Canada Tu choix Bobo. Rolling Stone a été contesté dans le milieu du showbiz suédois donc classement Bobo du classement Bobo xam les plus grands magazines du showbiz les monuments les industries de la musique mondiale Acceptent quoi mais là tu ci Youssou 68 devant Marley mais xanaa comment est-ce que tu jënt ngeen ñiy toog moo tax ñu jóg kin be kin galbi, ken bis bis Tu là suñu suñu doom responsabilité bi ah, ah da ngeen di dugg yow ñaar la ba xaw ma ku dugg bo dugg do la wax do la nuyoo ñu xam kan mo ñëw wala da nga sol kas ok alors Ken Bis a pris le courage de contester comme chaque citoyen ñom ñu téye Ken Bis di ko lyncher ci sen télé ak sen radio yi ñu téye Ken Bis di ko lyncher ci seen radio c'est un plateau jàkkaarloo Loy, ak seen web ak yoyu ken xamul ak euh, ku tok rek euh, animateur bu tok rek ne waaw choix ken bi kan. waaw. loolu la fa tuuti na ba kan mo Youssou Ndour mais vous imaginez vous croyez que Youssou Ndour il peut se classer devant Michael Jackson vous croyez que Youssou Ndour il peut se classer devant Robert Nesta Marley bokk bokkuñu ci contexte musique qualité de musique bokkuñu ku xam musique deug qualité musique la wax de bokkuñu ben ci contenu texte contenu texte bokkuñu ci message bokkuñu franchement donc nañu bàyyi ken bis bi singalé diko di ñom parce que dafa am problème ak wa TFM ak groupe fitin media ken bis yu xex bi bu bandur mo ñëk déclencher guerre bi ak ken bis ma wax leen tay lutax lu tax TFM utiliser Groupe Futurs Médias utiliser lu yëpp di attaquer xale bii ba darul dara dafa dafa ñafé mom, jël bi dafa ñafé, ba ba bokk ci milieu bi mais ambassadrice la mi ngi représenter Sénégal au Japon wala gaay yi xamuñu lolu. mu ngi représenter Sénégal à l'extérieur Xawma ma Chine xaw Japon mom kenn kiin bis ak dignité nag ak honneur Youssou Ndour groupe futur Médias TFM ñep ñi seex doomu jambour ji quoi way jàppal bàyyi kiin fi jàppal këran këran lo xam ci këran di compter surtout Sidaat ki ki gën a fës mooy Sidaat Sidaat Sidaat ñoom ay opportuniste lañu quoi parce que Youssou Ndour té ñom xam nañu ni xolal junni Youssou Ben Michael Jackson mo len man Fouf. Ñaar junni Robert Nesta Marley ñoo len mo len man fouf. dem len ku weddi li may wax dem len ci Google ngeen tappe magazine Rolling Stone classement le débat pourquoi ça suscite le débat ngeen dugg ci biir ngeen xool dañ ko contester et c'est des connaisseurs, c'est des, c'est des industries de la musique mondiale. nous ñoo contesté euh, Rolling Stone mais Rolling Stone journal la rek comme l'ops magazine la rek comme euh, magazine de mode ak yooyu rek voilà ay nit créé ko toog nekk ci showbiz bi kërën kërën mais qu'une Biz a na droit contester choix parce que artiste la mu ngi ci milieu bi am ci droit léegi lu tax ñoom ñu koy traité di maltraité di ko dit lu la ñu yekk ko doomu jàmbur ji te Youssou Ndour mi ngi def li Youssou Ndour mu ngi sàcc alalu sénégalais yi Youssou Ndour du fay taxe du fay impôt mu ngi liggéey ci kaw ndab sénégalais juste Youssou pouvoir bu ñëw nag nguur gu ñëw mu and ak Youssou Ndour Youssou Ndour ànd ak moom mais ken bis dignité la am may ñaan sénégalais ak artistes euh patriotes ngeen jappalé gel bobu, femme bobu dafa am dignité parce que xex bi bu len fatine dafa taxaw créer mouvement am conteste politique Macky Sall bi Mom dafa dëggu Mom au moins du jam, du traître mom au moins du far fu tooy rek mom au moins du xool intérêt bopam te te contester bu mu contesté Youssou Ndour mais partout ñu koy contesté dugg man man dama ne tek di def ay recherche bi dem tomber ci article bi xool len titre bi ma def ci page bi ci live bi mais ngeen dem dem len Google dem len Google c'est-à-dire ci hypocrisie bi hypocrisie, dañ ko war quoi moo télé bi lu yàqu ci Sénégal télé bi moko ko yàq télé yu sundur bi ak ak groupe Futurs nañ lu yàqu fi rek ci Sénégal coono bi Sénégal yi di dund désinformation bi intoxication bi ñom la duñu wax dëgg mu ils disent jamais la vérité te ci au moment où je vous parle Macky Sall ak Marème Faye ñi ngi ñi ngi ñi ngi ay gëléem ci palais bi sarax gëléem ñi ngi sacrifier ay gëléem ci ci ci ci palais bi fofu Marème Faisal ak Macky Sall ñi ngi sacrifier ay gëléem ma jox une information bob, dina ci wat ci sama live bi tay ma tej ko ñi ngi sacrifier ay parce que dañ leen ko digal quand même nañu respecter ndaw ay quoi di wax mais c'est honteux au lieu ngeen wax ci mi bi askan bi di dund on lay ngeen wax ci satch bi ñi satch on lay ngeen wax ci bi où ngeen wax ci injustice bo xamné justice bo xamné mom la nekkee Sénégal ngeen téye ko xamné ne jal bu une sërëm do mu dëgër këj and ak dignité ak honneur liggéey xeex liggéey ba ci niveau bu mu nek ni, Queen Biz sàccul xaalis Sénégal hein Queen Biz maa ngi di xaar une ma gis ken ku ga ku riposte une riposte wul ken waxul mais pourquoi ala Queen du sénégalais. xanaa kenn bis yu Ndour moo ko ëpp doole ci réew mi xanaa kenn bis Youssou Ndour moo ko ëpp droit ci réew mi wala Youssou Ndour moo ko gën a nekk sénégalais déedéet yu Ndour su ma nee ci musique am na côté bi nga xam ne kenn bis moo ko ko man parce que kenn bis am na fu mu décroché sur le plan international mi ngi représenté dignement Sénégal mu nekk ambassadrice sur le plan international te kooku kat sin bu métti moo tax mu jàll mérite la sàccul de moom au moins du ngàcc deretu sénégalais Queen Biz du sàcc xaalisu sénégalais du triande xaalisu sénégalais du musul ànd ak nguur moom mi ngi jigéen la bu takk sërëm di daan ak dignité ak honneur ku ko attaqué mu attaqué la bojo bojo waay waay Youssou Ndour bojo bojo la c'est-à-dire xam nga c'est inimaginable ngeen bëgg a jël Youssou Ndour bu ko tëkkale ak Michael Jackson wala jël Youssou Ndour bu ko tëkkale ak Robert Nesta Male ay wala ay Céline Dion est-ce que yéen xam ngeen li ngeen wax bi parce que dañu radio rek ku ko jay la gat ils ngay wax ni critique nit da ngay dem nga def recherche d'abord bala ngeen dal ci kaw dem c'est pas parce que Youssou Ndour la patron que Youssou Ndour a raison n'a pas raison classement ce magazine de Rolling Stone a été contesté les grandes industries de la musique c'est pas vrai Youssou Ndour nous ci Céline John Nous dund Céline nous Céline Youssou Ndour Céline vous voix wala da def wala da disque d'or Youssou disque d'or la fille mais Youssou Ndour nous daf ko xam nous ni daf ko dominer Youssou Ndour disque d'or double disque d'or la platine damu commencé installer rivalité entre Youssou Ndour ak Coumba parce que pour moom Youssou Ndour ben artiste warul déclaré am disque d'or moom rek fu mu ko dagg Kumba Gawlo ñoo dagg ci ñaar double disque d'or ak ben, platine Youssou Ndour ñaata disque d'or la am ñaata. il est le dernier à avoir un disque d'or pour le Sénégal xanaa xam leen ko Touré Kunda moo fi njëkk am disque d'or Touré Kunda moo fi njëkk a décroché disque d'or Touré Kunda ba muy do, di bobu ñu micro sans fil stade ibamar Diop jox ko yusunu yusunu di laaj fil ñu ne ko non non non micro bi amul fil sans fil la bobu suñu kanam la il faut ngeen def attention Michael Jackson lu mu dóor Dix d'or la te bu jënd rek Dix d'or Robert Nesta Marley bopp tib tib bu mu dóor Dix d'or yusunu ñaata tib la dóor pour dóor Dix d'or pour am Dix d'or ñaata ñaata tib la yusunu Ndour ñaata album la Youssou Ndour liggéey pour mën a am disque d'or disque bu mu am sax daf ko liggéey ak Nene Chéri fii benn gelu suédoise fii gelu suédoise la moo tax Youssou Ndour am disque d'or mérité ko de duo la def duo duo am on a rien c'est-à-dire dëgg bu ñëwee nañ ko wax comme ñoom dem nañu benn attaqué di attaqué xale bu ndaw jigéen bu am jom am fula mel ni Queen Biz di xeex ba mu am lu mu am ñi iñaane ko jël seen télé ak seen rajo ànd ci ak yeneen journaux di ko attaqué léegi ñun dañuy jënd andi contre attaque riposte pour wax leen ni gis ngeen mérite mérite dëgg dëgg dëgg dis door dëgg yow yaay taxaw yow rek nga xeex yow artiste bi yow le musicien yaa koy xeex comme Kumba Gawlo nu mu koo xeexee moom rek Kumba Gawlo mii fexe nañu ba ñu gaaree ko de mystiquement la ñu éliminé Kumba Gawlo te loxoom jënu ci moom yu Youssou Ndour loxoom jënu ci de mystiquement la éliminé gel bi problème bi gel bi yëpp Youssou Ndour la. problème bi coon sekk am yëpp Youssou Ndour la Youssou Ndour mi suñu fleuve suñu fleuve groupe groupe rap boobu suñu fleuve Youssou Ndour moo leen éliminé suñu fleuve Youssou Ndour ah moo leen éliminé pour ma wax leen ko suñu fleuve Youssou Ndour moo jaar seen kaw booy seen tib boobu lañu ñu jënd mu cartonné tib mu profité produire produire produire euh, euh, kii euh, booy boy bala ñu xam fekk envoyer na marché international mu ray boy complètement mom yusuf ndour problème ak tionset lool la problème d'enregistrement ici jo la Google, 600 000 600 000 la tionset Google. dem ici jo di hippi di def enregistrement bi gars noyé ay quelques pistes gars tej quelques pistes fekk yusuf ndour tukki dem na dem encaisser xaliss ba paré dem europe tionset gars yi def remarque bi xamne dañuy noyé enregistrement bi mu bëgg dal ci way waaye coon Youssou Ndour ne nañ studio bi lolu mo nekkoon conflit entre Youssou Ndour ak Thione Seck loolu moo àndoon xeex bi entre Youssou Ndour ak Thione Seck loolu moo àndi xeex bi attention c'est pour vous dire que dañu am ay traître traître c'est un traître Youssou Ndour bi traître la musul comporter combat du peuple ak statut bu mu amé musul gaddu xeexu askanu Sénégal intérêt rek temps yi mu amoon problème ak Macky Sall fi mom Youssou Ndour jamono bu mu amé kuma euh, temps ko Macky Sall zappé fi lan la jógee fi <laughs> de Fongolemi à à Ziguinchor de Fongolemi à Tamba de Fongolemi à au Burkina euh, commencé nak sandi ay xeeram mom Youssou Ndour c'est-à-dire dafay utiliser askanu Sénégal pour intérêt bopom crypto personnel.

ci salle bi ñu ignoré ko bu bandul jëndul wax ak moom kenn recevoir ko ñu ignoré gel bi foofu fii lañ jógu lekk fan la mujjee bu fan la mujjee bu bandul moo mujjee daw ci ginnaaw kenn bis queen bis pour wut réconciliation bu bandur moo mujjee daw ci ginnaaw xam nga ay doomaraam lañu ñoom gis nga famille boobu dañuy déclenche quoi dañuy salte trop bu bandur moo mujjee daw ci ginnaaw bu kin kin bis queen bis parce que xam na ni gel bi gaynde la ko faalew ko dundu leen gel bi taxaw xeex ak moom fan la Bouba Ndour dul mujjee ci émission boobu mu circulé biir dakaar ak oto bi émission boobu Bouba Ndour moomu ko moomul droit d'auteur bi xam nga kan moo créé émission bi inspiration xam nga fallu la Fallou Dieng Fallou Dieng Fallou Dieng moom moom émission boobu ñoo concept fallu Fallou la moo ko ñëw waxtaan ak Bouba Ndour Bouba Ndour piraté ko cest à ñoom ay doomaram lañu quoi Fallou Dieng moom moom émission boobu bu Bouba Ndour di def noonu jël la di wër biir Dakar di kërën kërën ci la dem négocier ba jël QNBis réconcilier di and ak QNBis te xam nga ñom dañoo ñak jom ay traître ñi ñak jom lañu cest la dire jikko bu salté lañu yor quoi amuñu ngor ci xaalis amuñu ngor ci éthique amuñu benn éthique amuñu benn moral koku du exemple ma xol leen ko tel bu baax koku du patriote du exemple gis nga ñooñu du ñu ay patriote du ñu ay exemple Kumba Gawlo fi bu Youssou Ndour gagné fi Dix Doram fi lan la def. autorité bi jënd taxaw ak benn sagaru dus dooram boobu quoi për këriñ këriñ ko am ñoo xam ne ay saaku dix lañu yore ay platine doo lañ gis ñëngu ba mu ko defee Kumba Gaaw la jënd ak patapata mu dagg double dix door double dix door ak benn platine mu ko Youssou Ndour au poteau Kumba fii fa lañ mujjé gaay jël seen média diko xex ko xeex Youssou bokk na ci ñi xex Kumba Gawlo tay problème bi Kumba Gawlo am ci baat Youssou Ndour bokk na ci loxo ma nga ci bir parce que traiteur la pour moi mom nag mo wara évoluer quoi waaye mu naan wooy ay mbokk Gawlo du gaw saram ndeyam amul y a pas de Gawlo c'est un monstre c'est un monstre ñii escan garé ndaw ci ci la bokk ci la bokk il est dedans continue dit attaquer quoi quoi parce que Bangkat là, mais Queen bis. bi Sénégal bi Sénégal que tu te retrouves, le mouvement la taxawal nous porter le combat du peuple mais ce sou, nous attaquer défendre ma quoi ma dem ci recherche magazine Rolling Stone ma dugg ci magazine Rolling classement des 200 voix Il faut susciter le débat il contester et les plus les plus grands industries de la musique ñoo constaté choix il mais yéen a des mais ils ont dañ ils ni fait des dof Nous fan lay Michael Jackson sommes fan fan la mais nous waxante fan la koy jaar Michael Jackson ci popularité ci stade yu muy fessal mom rek kon donc Youssou Ndour du ñam day ñambaas de mais Michael Jackson mom rek stade yu muy fessal momul fukki jun ñoon sagaru stade yi ngeen gis ni ay ñom bercy du saram dayam ben deuxièmement nombre de dix nombre nombre nombre de dis dix d'or yu Michael Jackson am yu sunu amul ji nga xaj bi bo jëlee xaj bi nga xaj ko encore yu sunu amuko ben sagaru dix d'or rek la am Ben ay garmi awx ñata artiste ñom garmi awx ñom baba mal yeb décrocher na ay garmi awx ay kërën kërën ñom ñoo ay titre fi michael jackson lu mu teug dix dollar ay garmi awx la dem eh? yow yu sunu dina devancer serigne jot ngeen yaakaar ci showbiz bi hein eh? Marley lu mu dóor dig la bop bop lu mu album a décroché dem len Tufugan ngeen xol historique sur le plan contenu message bokkul ak ak message moy mo mun sa maami Youssou le sa koko ko man sur contenu arrangement son qualité de musique bi style bi de musique Nous nga ñëw ci contenu message bi beaucoup. comment ñu téye doomi jàmbur bi di quoi ci nous ak une piste quoi di nous quoi pour la, pourquoi mais dignité parce que moi demul tafu ci di ŋàcc deretu sénégalais di de sénégalais di ray musicien ëllëg ci biir projet bi Omar PEN kan moko ray attention Youssou Ndour les pour Boybi bi du parce que Boybi bi côté Tamba il la joué de le Dakar Tamba ay ñom ki Koupentoum xam xama boole la dafa xex be il s'est battu be mu bokk Queen bis dafa xex ci fulla ak fayda xex yi ni de promotion canapé mu xeex dignité Be exi fu exi egsi dem di représenter Sénégal Japon Kim Wis c'est un débat Tidiane Diédhiou c'est un débat voilà c'est un débat parce que tu sais pourquoi c'est un débat Tidiane Diédhiou parce que le gars le gars au fait sa famille sa famille là qui conteste qui attaque cette dame là cette dame-là, ce gars-là a été toujours du côté du peuple. Qu'est-ce que Youssou a fait pour les Sénégalais Toujours du côté du peuple. C'est un débat. Arrêtez votre, votre comportement hypocrite. La vérité, il faut le dire. Cette dame a été lynchée. Qu'est-ce que qu'une qu a fait pour être lynchée Voilà, vous croyez que notre combat, on s'adresse seulement à Macky C'est ça. Tu penses que notre combat, c'est seulement Macky Même si toi, tu fais des conneries, on va t'attaquer. Même moi, si je fais des conneries, ils vont m'attaquer. On n'est pas là, c'est de la fumisterie. Nous ne sommes pas des hypocrites. Il faut arrêter. La vérité, c'est la vérité. Soit tu acceptes ou bien tu fiches le camp d'ici. je parle, je m'adresse à toi. Tu te casses. C'est pas à toi de nous dire que ce qui est le débat ou le débat. On, ne marche pas avec des hypocrites. Moi, je ne marche pas avec des hypocrites. Cette dame n'a rien fait. Elle a été laissée ici dans les réseaux sociaux. Elle a été laissée avec le groupe Futur Média. Tous ces plateaux de Diakarlo là, c'est euh, le web, tous ces net. ils l'ont attaqué. Qu'est-ce qu'elle a fait Parce qu'elle a donné son point de vue. Elle n'a pas le droit de donner son point de vue. nous et qui toi, tu es qui Moi, je suis qui Alors, il faut arrêter. Ce sont des gens comme vous. Ce sont vos comportements-là, vos raisons, façon de raisonner-là, que le Sénégal aujourd'hui se trouve dans, dans, dans le chaos, quoi. Pour l'injustice qui se, qui se passe là, ça a commencé comme ça, par ces comportements. Les gens, ils combattent l'injustice. Toi, tu sors là-bas pour dire c'est un débat. Qu'est-ce euh, euh, est-ce que tu peux me dire ce qui c'est le débat Le débat, c'est quoi D'après toi tu m'entends, non Dis-moi le débat, c'est quoi débat Tu parles Dis-moi, parce que moi, je peux te joindre. Hein. Si toi, tu peux pas me joindre, mais moi, je peux te joindre, Tidjane. Et tu me dis, le débat, c'est quoi Et quoi, quel est ton problème Pour toi, on doit rester. Qu'est-ce que tu peux me dire le débat Le combat que nous sommes tentés de mener, qu'est-ce que toi, tu as mené comme combat C'est toi, au moment où je parle, il y a la guerre chez toi. Chez toi. Au moment où je parle là, les militaires ont déclenché une autre guerre dans le côté du Seigneur. Il y a quatre militaires tués au moment où je parle avec toi. Est-ce que ça, tu le sais Est-ce que tu le sais Au moment où on parle là, il y a la guerre. Macky Sall a déclenché encore la guerre en Casamance. Il y a quatre militaires tués. Quatre. Des innocents qu'on utilise militaire tué C'est quoi le débat Tu t'exprimes Parce que, attendez, nous, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de temps à, se poser des questions. Pourquoi tu poses ça Tu t'exprimes clairement. Si tu n'es pas capable de décrire clairement, tu te casses quoi parce que nous ne sommes pas des hypocrites. Ce combat-là, on, est en train de combattre l'injustice. Nous sommes en train de combattre l'injustice. Que ça soit à moi, que ça soit toi, que ça soit Macky Sall, que ça soit le régime de Macky Sall, que ça soit qui que ça soit. L'injustice, c'est l'injustice. Cette dame-là, elle s'est battue, elle a, elle, elle, elle, a, elle a démarré du néant jusqu'à arriver à ce niveau-là. Avec courage, avec tous les tentatives du milieu du showbiz. Elle s'est battue dignement. Elle s'est pas vendue. Elle n'a pas fait la prostitution. Elle a gardé sa dignité, s'est battue jusqu'à arriver là. Aujourd'hui, elle est ambassadrice au Japon, du Sénégal au Japon. Il faut qu'on lui mérite du respect. Pourquoi ces, ces, ces, ces organes de presse l'attaquent Parce que c'est Youssou Qui est Youssou Aujourd'hui, si je dois faire le choix, je vais choisir Kenbis. Parce qu'elle est moins, elle, elle, elle, est digne. Elle est honnête. Elle n'exploite pas les Sénégalais. Elle ne vit pas avec les sangs des Sénégalais. Elle n'utilise pas le peuple sénégalais pour avoir une autorité, créer des entreprises,